lu jiitu loolu yëpp da ngeen bokkoon ci euh, coalition Yewwi Askan bi ñu génne leen ci li nga xamante ni moom moo di coalition bi donte ni tey jii ku mel ni Khalifa Ababacar Sall bi sa leader jàpp nañ ni sax bokk na ci euh, fondateur euh, coalition bi di Yewwi Askan bi terewul après ngeen bagg seen yoxo ni ñu gis ni defu leen ci benn jéego ngir intégré war seen bopp ci li nga xamante ni moom moo di coalition Yewwi Askan bi ba plus tard mu mu mu mu mu yegg si mu mu mujjee ci li nga xamante ni moo di seen génn ci groupe parlementaire bi euh, foofee ci assemblée nationale tey ñu gis yenn leader yi askan bi yëpp pratiquement déggatuñ leen ku mel ni Déthié Fall déggatuñ ko ku mel ni euh, euh, ki nekk pur Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Youm plutôt ko et autres ab donte ni nag am na ñu nga xamante ni tey ñu ngi ci biir gouvernement bi ku mel ni Habib Sy bi nga xamante ni ma nga Senelec ku mel ni Aïda Mbodj bi nga xamante ni nañ ko deex et autres ndax da ngeen jàppoon ni Yewwi Askan bi ñu gis ni jaru ngeen di mën a combat non non du loolu xam nga aussi ma ma ma corriger benn at bu leen fàtte ne jour bi ñuy voté loi report élection yi jour boobu ñoo bokk xeex ko ñun ñoo toog def suñu stratégie dañu dañu dañu dañu delluwaat réunion euh, bureau Cheikh Thioro ñëpp taxawaat baat taxaw ñu ba ñu ñu toog ñu ne ñun ñun da ngay jékki-jékki duus loo ne doo sax comprendre nga jékki-jékki tey ñun ñoo fi tekkoon rentrée bi xul xuloo waxante tas. Mm. tey ñu ngi nii taxaw bokk benn xeex. Mm-hmm. mais jour boobu ñu ñoo toog def suñu stratégie. ànd ñun ñëpp ñu taxaw député ñu ne bon on va faire des motions préjudicielles ñu ne bu ñu duggee à chaque fois kenn dañu ne appel au règlement am mille nag ñu fexe ba 5 minutes yi nga am na nga ko wax ba mu jeex bu ñu waxee ñu ñëpp balaa minuit du fekk ñu pare séance bi noonu lañ def di yéeg di yéeg di dem ba ba à 22h bi gars yi xamee ni dañuy leen di am mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait la gendarmerie. gendarmerie bi ñu jàpp ma man jàpp Ahmed Aïdara jàpp Guy Marius Sagna. Mm-hmm. donc ce jour-là on s'est ensemble parce que on a compris que li nekkoon suñu kanam moo gënoon important conflit yu ñu am ça veut dire que bu ñu nee mootuñu liggéey wala dara dox suñu diggante je pense que loolu nekkul dëgg parce que ce jour là wane na ko maintenant li may wax mooy ñu lépp lu xew on l'assume on l'assume parce que parce que dañuy jàppale benn benn benn nit tey man j'aime pas ce discours de facilité là où ku nekk day won naa non diw moo leen yàqal diw moo leen yàqal fii benn candidat mu amoon Sall man ak lu mu mënti am damay dem ci Khalifa Sall ne ko euh, grand lii xew na de grand dialogue bi lii bu ñu ci demee est-ce que duñ jëlal mais c'est en tant que candidat qui a fait ses choix ak qui a mené sa campagne donc tey lii la yàlla indi on l'accepte en tout humilité mm-hmm. en toute responsabilité mm-hmm. peut-être que mën naa su fekkoon amoon naa temps mën naa reprendre campagne bi wax la les moments charnières les moments mais on n'a jamais été dans la haine on n'a jamais été la volonté de dire dañuy yàqal diw wala dañuy yàqal diw wala facilité boobu ne ñun dañuy toog pour que bu ëllëgee bu Sonko nekkul candidat ñu mu jëriñu non on a dit à Khalifa tu veux être candidat ça passe par le sa passe par ça demal nga góorgóorlu nga dem xal sa yoon parce que démocratie mayuñu comme ni ñu ko waxee woon Tanor suñu biir parti comme ni ñu ko waxee woon Macky Sall ba mu ñu waxee ni du ngeen nekkaat candidat maire Dakar bu fekkee ñëw leen ànd ak APR. Mm. non les Maintenant, il appartient aux Sénégalais d'accepter leur offre politique ou de le rejeter. On y a été, ils ont rejeté notre offre politique, alhamdulillah. Maintenant, pour man. mais dafa mel da ngeen sentir woon yeewu bi du dem fu sore moo tax sonnoo leen. non non sonnoo leen ngeen eh, toog ni eh, c'est eh, pas grave. man man man Penda du ma daw débat man euh, aujourd'hui je considère que bu fekkee yow man nga dem jëli Serigne Gueye Diop bi nekkoon biir APR boo amee un industriel comme comme comme comme Déthié je pense que mënoon nga liggéey ak lui. boo jëlee ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Youm qui porte un parti aussi important que le PUR mën nga liggéey ak moom mais nag aujourd'hui pour man ces gens là aussi ils sont un sont un parce que ba problème ak Khalifa Sall amee ils auraient dû avoir la sincérité et la loyauté de dire écoute charte bi lii la wax charte bi dafa ne bu ñu demee élection présidentielle mm. na ku nekk benn ndëm mais ku nekk amoon na yeewi dafa am benn jeu bu bu xawoon doy waar bu fi nekkoon où chacun da doon dem en en ayant en disant que bu Sonko bokkulee mën lay jëriñ mais waa Pastef xanaa dañuy sël moo suuf parce que dañu liggéey ba fii di ko jox jàmbur moo tax ñiy toog di espérer aussi naan xaaral ma wax wala xaaral ma xeex bu ëllëgee Pastef jox ma assemblée ba joxe da ngeen di nax seen bopp Pastef seen parti la liggéeyal booy du ñu xeex dem kaso ba pare jëli leen ko jox kooku ku ko jàpp tuuti naïf mais ñun xaal nañ suñu yoon. est-ce que kon loolu mooy loolu mooy expliquer euh, quelque part seen mutisme xëy na bu fekkoon à l'époque ils la le courage ñeme xëy na du ñëpp ñeme dékku saaga du ñëpp a ñeme dékku yuuxoo yi comme ni ñu yuuxoo yombul woon mais on est resté sur bu fekkee ñoom ils sont sortis pour dire écoutez lii la charte bi wax. Mm. et ñun dañuy dem nekk candidat. mais bu fekkee euh, dem ngeen nekk candidat li xëy na li Pastef doon xaar mooy ngeen def li Cheikh Tidiane def ak Ayib si def mooy jàkkaarloog sénégalais nekk candidat nu mu rëyee sax bu mu doon. honneur bi mu doon nga jàkkaarloo Sénégal ne man dama leen bëgg jiite mm-hmm. mais yow nga jàkkaarloo Sénégal naa leen dama leen bëgg man candidat laa mais diw waxal mm-hmm. bu fekkee yéen mënu leen woon def loolu seen parcours mayu leen ko seen seen jaar-jaar mayu leen ko seen seen daya mayu leen ko mais nga am courage jàkkaarloo Sénégalais yi ne écoute li la charte bi wax mm-hmm. et nous invitons le PASTEF à respecter la charte et éviter de verser dans cette dans dans politique qu'ils sont en train de faire à Taxawu et waaye nag ku aayewal sa moome mhm. tey neex naqari ñoom ñoo falu mhm. ñoom ñooy tànn ku ñu bëgg a liggéeyal mhm. su leen neexee ñu dem ba élection législative son Sonko ne bon bon majorité bi na gën a yaatu parce que jàpp naa ne en face li ma am mooy la grande famille libérale Karim da ànd na ak man gañe naa jox naa ko ministère nee na maa bañ mais lu tax parce que xëy na am na lu muy sóor am na lu muy waaj parce que il s'est dit qu'il sera candidat la prochaine fois am na am na Idi am na Macky am na Amadou Ba donc man aussi damay travailler à avoir une une majorité qui m'est propre bu nga xamante ne dafay am un projet politique buy déparé fi ma fi ma tàmbale ba xëy na fi ma bëgg yam moo xam dans cinq ans la wala dans dix ans wala dans quinze ans wala dans vingt ans parce que nag ku jël bi dugg nii. mooy tu renonces à mm-hmm. parce que c' est la jurisprudence la Landing Savané. mais ñoom loolu képp ku ànd ak ñoom ngi desoon yeewi pratiquement loolu la ñu woon est ce que du moo tax tey jii voilà. waaw mais parce que moo falu. tey mën nañu dem ba élection législative Sonko génne bon kaa ñu ànd ne waa PUR kaa la dem kaa la dem bokk majorité mais dix yi amoon de mënu ma ko jox. am naa deux wala trois est-ce que daañu ko nangu. kon situation bi am actuellement ni ay Yewwi Askan bi yow bettu la. politique dafa am ay règles am ay normes politique c'est pas un jeu du ay fo et je pense que les gens non pas été conséquents avec eux-mêmes quand tu es dans le jeu politique et que yow nga décidé ne man j'ai de l'ambition présidentielle man vocation à concourir mm-hmm. mais da da ngay da ngay da ngay conséquent avec ça les gens ont voulu créer une politique qui n'existe nulle part. su Khalifa Sall nekkoon toujours dans Yewwi Yewwi dina demee nii. non du ma jàpp ni Khalifa Sall nii mais bon benn instant ñoom dàq nañ ko parce que Khalifa Sall dafa dafa dafa payer ay situations yoo ne cëru magam la jël. mooy xalifa Sall à chaque fois que bi après investiture législative yi mais ñii nee nañ Khalifa mooy yàq liste bi alors que député bi indi problème mais les gens ne sont jamais posé la question fan la bokk bokkul taxawul xalifa dafa mun toog këram xalifa demul DGE Déthié e Fall la fa nekk ak Cheikh Yum xalifa déposé wul liste Khalifa mu ngi këram toog liste bi yàqu ñu ne xalifa Sall la mais Khalifa Sall moo na génn wax wala wala wala wala wala yoole mais il a choisi man maa leen mag maa leen ëpp jaar-jaar magay naa leen presque dix ans quinze ans donc kenn ku nekk ñoom suma ay rak lañ xanaa maak Habib Sy bi ma xaw a maaseel et d'ailleurs Habib Sy et Khalifa ont travaillé dans le même ministère. mais boobu kan ma ko yàqoon. non on va passer na. lu passé nettali xuloo xuloo la c'est derrière nous. et aujourd'hui tey mais mais bëri ñu bëri ñoo ñu bëri ñoo xam ne Khalifa Sall loolu lañ loolu lañ ko meree. mais ba tey kenn déggu ko mais je pense que tey les gens ont voulu faire de la politique en refusant de respecter li xawoon ñuul yeewee rek mooy que chacun se pensait que man mën naa jël affaire bi à une condition. mooy que comme ni nga waxee booy bi bu mu bokk. Mm-hmm. mais booy bi daful booy jaar na yoonam. Mhm. Euh, nekk na président. Mhm. et heureusement que xëy na moom waxtaan ak Macky il a dialogué. Mhm. et à juste li ñu doon wax lenn la.

Québécois ca mairie bu Dakar ndax lu ni mel benn mun na nekk waawam déet gis naa sax ay journaux yow nga xamante bind nañ ko lu ci mel ni yor-yor bu Serigne Saliou Gueye. mënul nekk parce que Barthélémy Dias pour ñu révoquer la en tant que maire comme dafa pour ñu condamner la pour crime Barthélémy Dias n'a pas été condamné pour crime par contre tey mise la justice. bu bindee président assemblée ne ko Barthélémy Dias a été condamné mën na perdre son poste député ça personne n'en disconvient Barthélémy Dias peut perdre son poste député mais il ne peut pas être révoqué du poste de maire de Dakar loolu c'est totalement c'est très clair ah kon xanaa journaliste yi ko bind ñoom xamuñu loolu. waaw yàgg nañ fi man damay tàmm di déglu ñi ñuy wax yoo xamante ne man damay damay damay damay damay ree ba sonn. parce que li ma ko liiree ci yoor yoor dafa ne affaire Ndiaga six mois après la décision de la cour suprême mu ne qu'attendent les nouvelles autorités pour déchoir Barth de ses mandats de député de maire. mu ne l'article du code général des collectivités territoriales lorsque le maire ou tout autre conseiller bu ñu ko condamné woon pour crime dañu ko tëj 6 mois mën nga gis ku def crime tëj la 6 mois bon Barthélémy Dias n'a pas été condamné pour crime et c'est ça règle le problème donc Barthélémy Dias na maintenant bu fekkee y a des gens qui ont envie de prendre leur revanche wala parce que mere nañ Barthélémy pour être franc Penda loolu ñëpp dañu koy ñu bëri leen toog ne la waaye yéen Barthélémy Dias moo leen yàqal man toujours question bi leen posé mooy waa d'accord ok bu woon di nga votal Khalifa ah non grand man nag sama voix Sonko ma ko woon yàlla moo fi indi benn phénomène Ousmane Sonko moo nekkoon ci xolu nit ñi nit ñi votal nañ ko jël na réew mi faut pas essayer de nous justifier ça en essayant de trouver des explications Barthélemy du lépp lu mu def dañ ci d'accord tu vois je veux dire du posture bu mu am yëpp dañ ci dañ ci d'accord mais xam nga tax parce que moi je considère que à un moment Barthélemy Diaz am na ko ma yow Abba nan la baat li mënee wax wax Sonko ne ko na toog xaar xalifa jël après mu jël après Khalifa je lui ai mais parce que seen relation eggoon na foofu les relation entre Barthélemy et, et et Sonko étaient arrivées à un tel niveau moo tax ne ñun ñëpp ça nous a ça a aussi surpris que que que que que que que, que désarçonné. Mhm. ñoom ñaar ñoo demoon ci seen ay relations am na lu ñu dox foire na xuloo xuloo nañ ça a eu les conséquences politiques yooyu maintenant c'est c'est pour man c'est quelque chose qui aujourd'hui est derrière nous ñi nga xamante ne nag dañu bëgg toroxal Barthélemy wala humilier Barthélemy man ne connais Barthélemy et Barthélemy parcours même il la gis nga 2012 bi Barthélemy di génn di génn di génn prison ñun ñu toog di waxtaan mu ne ma mu ne ma Abba gis nga tu as vu ñun ñoo xeex fii ak Ablaye Wade man maa fi njëkk a manifester maa fi njëkk a songu Ablaye Wade teg convergence socialiste di xeex ba alternance am ñu songu ma sama mairie gars yi jël pouvoir bi ils m'ont laissé en prison bàyyi ba élection législative ñëw ñu naan ma non dañ lay génnee pour que nga mën a am unité parlementaire alors que li ñu waroon def mooy fexe ba nga xamante ne li topp ma. te defuma ko te xam nañ dañ ma tooñ Macky Sall ñëw na sama kër dañ ma tooñ ñëpp ñëw na sama kër dañ ma tooñ mais ils ont préféré laisser ça pourquoi Macky Sall n'a jamais réglé ce problème de Ndiaga Diouf là alors qu'il avait la possibilité de le faire. mais quand hmm. euh, ni ce matin li quotidien daf ko posé mu ne. Hmm. le journal Yoor-Yoor euh, veut-il se venger d'une convention qu'il n'a pas exécutée que la ville de Dakar a refusé de payer. je pense que Yoor-Yoor euh, bu ñu amee lu ñu bind pour terminer mais pourquoi Ndiaga Diouf c'est une personne mais événement yi am c'est quatre-vingts morts le dernier conseil des ministres qui est qui est je sais pas le onzième ou le douzième conseil des ministres insiste sur l'urgence qu'il y a à rembourser les victimes mais pourquoi c'est ça l'urgence est-ce que l'urgence n'est pas d'enlever cette loi-là et d'aller au procès pour que ñu xam qu'est-ce qui s'est passé moi j'ai bien envie policier bi jël parcelle visé boy bi dóor ko j'ai bien envie de savoir qui a donné cet ordre à quatre-vingts morts est-ce qu'on va faire comme ça rembourser oublier si pour quatre-vingts personnes on est prêt à oublier pourquoi à un moment les gens n'ont pas oublié l'affaire Ndiaga Diouf mm. alors que Barthélémy était autorité maire agressé devant sa mairie mm. c'est vous dire à quel point aujourd'hui c'est injuste que Barthélémy nekk la seule personne qui va perdre ses droits civiques mm. à cause de cette histoire-là mais à cause des quatre-vingts mois d'autres autorités que jekku nañ que dañu war a fayu si Barthélémy Barthélémy ni ñu ko teg dafa injuste bu fekkee ñoom mën nañu waxtaan président ba voté loi amnistie ba baale ñu ne am na quatre-vingts morts et des milliards de pertes économiques des gens qui ont perdu leur business des entreprises comme étrangères ou locales qui ont perdu des milliards ñu mën ko fàtte mais le cas Ndiaga Diouf Barthélémy n'est pas allé tirer sur quelqu'un Barthélémy est un maire qu'on a qu'on a trouvé devant ko si on peut oublier on peut oublier l'autre aspect et je pense que c'est ça te à quel point li nekk def Barthélémy mais heureusement nag li ma waxoon gars yi ñu ne man leen vous ne pouvez pas faire votre marché dans l'histoire d'une personne mënuñu jël dundu Barthélémy wala suñu dundu ñun ba ko yemale ci deux ans trois ans ñu xam ak Sonko mais ñun bi ñu teg Comité social c'était en 2004 ça fait vingt ans 2012 Barthélémy bu mu génnee kaso dañu toog di waxtaan mu ne ma Abba gis nga grand yi ñuy def. seetoon nañ seen ay poste jël seen ay ministre jël seen ay PCA man ñu ngi xaar pour député pour jéem ma jox poste parce que neen dama war a am immunité parlementaire donc Abba li ñu war a comprendre mooy que mënuñu dundee nii parce que bu dul politique rek ñun ay père de famille lañu. Hmm. dañu am ay doom acte bu ñu posé sunu famille ñooy jeexital bi tey Barthélémy su la jóg organisé wu di liggéey Barthélémy ku koy wër fekk ko toolam tey ñëpp bu ñu defoon ne Barthélémy ñu am autosuffisance alimentaire tey aujourd'hui c'est une exploitation agricole yàlla na ko yàlla fa cet sama gémmiñ ak sama gémmiñu morom tey il a une très grande importante activité économique à partir de lagriculture mu nekk nag sa passion ñiy xaar ne parce que dañ koy jëlee mais dafay torox vous vous c'est quelqu'un ku nga xamante ne depuis 2012 il s'est organisé pour que la politique ne soit pas le centre de sa ah, mais ce qui ce qui est en de dafa bañ kooku fa mu ne surtout sa consultant boobu xam nu mu tudd Kédougne Touré muy wax loolu. mais <laughs> Chessman Touré. donc Barthélémy. Hmm. depuis il a compris ça parce que ce qui s'est passé en a été un choc pour lui man Barthélémy sama xarit la sama mag la lu bëri dañuy waxtaan moo gënoon métti. 2012 toog mais 2012 Barthélemy toog na doomam jógee école génne école jëlee ko mu toog di jooy mu ne parce que chaque fois dañ ko sa papa assassin la. Mhm. sa papa dafa rey nit. Mhm. am na benn jour avant événement yooyu avant bi ñuy def meeting yi place la nation man Barthélemy maa moom ñoo nekk central gars yi ne bu ñu jógee manifestation dañ kenn doon jëli commissariat central aaroon na si ay intelligent mu bàyyi Barth génn mais jour boobu Barthélemy bi muy génn daanaka nit ñi ñu xaw oto bi mais Barthélemy bi muy génn kaso lu ñu wax. non c'est sax assassin qu'on a libéré pour permettre mu dem nekk député mais il s'est battu pour que wax boobu dañ pour que mu nekkaat le Barthélemy en qui les gens ont confiance mm-hmm. donc tey boo ko teggalee poste maire wala poste député mm-hmm. jàppal ni jël nga quelqu'un qui est très politique qui est intelligent qui est courageux nga libéré ko boo ko libéré libéré jox nga ko temps de se battre et de construire un opposition mais a mën a di dégg nag le plus souvent muy moom également muy ku mel ni Khalifa Sall parce que je suppose que vous êtes dans euh, nga xamante ni moom mooy seen position dans euh, nekk jeune nekk étudiant euh, di créer convergence socialiste jooju da ngay toog wax tanoor tanoor laa ana gaa yi ne yow kan ngay àndal tanoor yéen tanoor du mos am yéen tanoor dafa mos falu mais on avait fait le choix de soutenir parce que c'est pas ça la démocratie. xam nga lu mu la wax euh, euh, on a continué à nous à nous gis nga débat politique bi ñu am nii saaga yeeg xase yi mais 2000 bi Abdoulaye Wade faloo fii ñun nos familles nos parents sont des mais bi Abdoulaye Wade di faloo fii non non da ngay wax sañu la bàyyi leen góor gi mu liggéey 40 ans defu leen fi dara bàyyi leen góor gi mu liggéey 2007 ñu dem élection mais Abdoulaye Wade gañu naan Guinée yi ñoo voté mais deux après euh, on gagné la mairie de Dakar Khalifa Sall devenait ñu jàpp ni Tanor mooy falu Benno Siggil Sénégal bi ñu porté à la tête des moo tax les gens qui de Yewwi là mais n'oubliez pas que en 2012 Benno Siggil Sénégal moo porté élection locale yi Benno Siggil Sénégal moo gagné mairie de Louga la mairie de Diourbel la mairie de Dakar ainsi de suite ainsi de leen am aussi boobu le parcours wax fa dëgg neex yàlla ba di ci bàkkoo te fu mu ne réew mi fu mu toll ci wàllu politique aba kenn du ci dégg kenn ci yéen i leader. mais j'arrive oui mais 2012 bi ñu dem lu ñu waxoon Macky mais dañu yaakaar ne ñu ñooy falu. wala Khalifa dafa ragal a opposé wu. non Macky Sall ñoo falu face falu. ñu ne ñu ngeen su ngeen àndul ak donc loolu mooy démocratie démocratie da ngay gagné tey suba nga nga perte tey aujourd'hui la question pour nu fondamentale et li may wax moo tax je fais partie des gens qui disent à Barthélémy ne communique pas continue ton travail à la tête de la mairie parce que du ñu nag Pastef du ñu nag Pastef ñu nag sénégalais yi la parce que bi coow li amee sénégalais yi jox ñu dëgg taxawu. non mais yéen ak Pastef la nag léegi. parce que ñoom ñoo yore nguur te yéen ay. opposant nguur gi mais mais moo tax. li ñu bëgg certainement bëgg ku leen jox nguur gi. bëgg ngeen ko foqati si ñoom. ku leen jox sénégalais ñoo leen ko jox. sénégalais mais yooyu la sénégalais tamit honorable yéen bu lu génn di communiquer naka ngeen bëggee tey ñoom ñu wóol leen ba dénk leen. mais sénégalais yi ñoo jox nguur gi Pastef ñun respecté nañ sénégalais yi respecté sénégalais moo tax ñu ne yéen a voté à cinquante mais même sénégalais yooyu également ñoo ne ko mën a jox également ëllëg. mais y' quarante six pour cent des sénégalais y' quarante six pour cent yu d' loolu waa Pastef ñoo war a ñoo war xam ni que am na quarante six pour cent yu voté lul yu d' ak. mais parce que c' un pouvoir qui a gagné à cinquante pour cent qui n'a pas gagné que dans les zones urbaines qui a gagné dans les il faut respecter l'expression des Sénégalais ñu may leen chance ñu installé wu c'est ça la logique ñoom toogaguñu sax pare ñu sax nommé nga bëgg ne da ngay xeex ñoom mais da ngeen bàyyi ñu toog nga am grandeur ak noblesse dalal leen ñaanal leen jàmm ñaanal leen ndam parce que bu ñu amee ndam ndamu Sénégal. parce que mutisme Khalifa ak Barthélémy dafa dafa amani certain tey jii